ku tawat ba muy julli nag tawat ji tax muy binnee ko wonk loola dara nekku ca jégal nañ ko ko julli nag xaddamiku moom su ko defee ngir aajo mel ne baatam daa xaw a fat mu xaddamiku ngir mën a wax bu baax loolu moom bu fekkee muy jàng faatiha xaddamiku ga mënta ñàkk ndax war naa jàng faatiha njàng mu wér bu fekkee weesu na faatiha ja nekk ca saar wa muy na daañu sopp mu xaddamewu ndax mën a jàng saar wa njàng mu leer ba tey sax bu xaddami ko xaddami koo xam ne ajuwul ci julli gi waaye ngànta ko waral ni ki daa am kuy nuyoo mu xaddami koon ko ne ko daay julli baa day jullee fu lëndëm am kuy ñëw mu bañ mu dal ci kawam nag tax mu xaddami ko yooyu yëpp ku am la ko ñu digaloon ko sujjóot waru ca toog foofa taay taay dara waru ca julli ga baax na mu xaddami ko boo xam ne yëkk tàmbali jóg waaye nag ko nag laata ay loxoom ak ay bëti woomam ci lañ ànd bu bëte ko suuf Maalik da caa wax mu fàttali ñaari wax moom benn ba dane fii ñaari rakk yàqu te dañ ko fee benn ba mu ne mu toog fi taaya ko tayee julli gi yàqu na mun a yëkkee tàmbali jóg su fekkee ne dafa juum rek day sujjoo loxoom bax de sa bëti woowum lu ci ay dalal di borom al akhbar yi waxe ak ko ci señ bi topé mo rek tuddu ñu ben yoon jog jallamiku te kenn du wax ne ko sujjoo li wax dañ ne bu ko défé dal té du nga ndax rek xamné lam do won yëk do nga li dara bobu ndol li mo tax solo tamiku lu wayef la def na lu ñu ci rek bu bax de salam diko jappé ndol len su fekké né bam amé ñaar